kitaabu samsul arifin li taw di muskilaat rax si awliyaay wa rax si seytaan téere bi nga xam ne ñu ko tuddee jant bi leeral ñi xam pour ñu xàmme feccinu nitu yu rahmaan yi ak feccinu nitu seytaan yi ndax bul dégg baatab raxsu rek nga ne fecc lu nekk jëfin moo koy tekki mm-hmm. jëfin boo déggee te firil naa la ko firilaat ko mooy bàyyi wax na ko boo demee ci euh, sa yàqutut farida mu ne dangay def ba ngir léegi nag indil naa la pays yi passé yëpp gisula ci fecc mooy payu euh, yàlla bi ak yonent yëpp mm. saamir yu mais murtatoon moo njëkk a def fecc ci kii léegi nag spécial pour yonent bi moom PM bi laa wax moom bii moom spécial pour yonent bi xaajal Seydina Muhammad salaa salaam waa saabi yi woo baa dara dara ba ma indee yonent boole ko gaaya dama ko indi noojo baxsana ila xadrati salaa salaam wa ashaabi ridwaanal alim ak ñi nga xam ne ñoom la am na yal na yàlla gërëm leen ci laa bëgg a seet ba xam ñoom itam nan lañ doxalee mhm. fay na kasiran nag ñu bari mi ne raaqisi ne feccikat yi mhm. yaa atami doona ñu ngay sukkandikoo bi ahadisin ci ay hadis mhm. yu fa siroona ñu ngi koy firi bi maa yu taabiqoo nam dëppoo awa om lañ bëggee firi mooy firi bëgg-bëgg firim bëgg-bëgg da firi na bëggee ولكني وايما آه، بقدر ما الله صوت كم نقمنا شد نقم قستكو من الأحاديث ما سميت مسمى ديك حديثا بن أديس إلا وقير لمي تنكنا برخصي وتمايل وتواجد أديس بما ديك مي تفتي موي تمايل جاي ولا تواجد nga xam ne moomatu sax ngay def tuwaaju ba ngir ah, wasaalika buñ ne raxsu xam nga leex tax ñu ko raxsu mooy li ci sa xol bi tekkee ko na léegi nga xam ne kon nag ah loolu nga jublu mm-hmm. ah léegi nag boo demee ñu cën nag raxsu dana firi kon nag ah, tamaayu dana firi tawaaju mm-hmm. raxsu dana firi tëb fecci yow nag boo diggee raxsu benn raxsu rek nga jël na déedéet moo tax benn baatu arab day juumloo nit baat bi day firi ay firi te ñun firi yi kon euh, euh, kiréwu ku topp lañ ko firi bii moom moo moom la wali yu defee moom bii mooy awliyaaw seytaan bu ñu koy def moom mooy dañuy dóor ay ndënd tëb fecci boole ko ay rite ki xalam boobu bii nag moo tax damay wax man même musicien arabe sax man dàq man du ma déglu musique musique ni ma na ni ma xamante ni musique fran musique musique wolof moom misuk arab kiif kiif laa ko def moo xam day tagg yonent ma da ko xam ni ngeen seen suñ sëriñ bi moom lañuy musique moom lañuy tëggal léegi tax na mu baax est-ce que du ma sax baax ndaxte dañ ko jël léegi xacc ko dugal ko ci yoru bakkan kon na nga dégg ne raqasa rek nga ne ay tëb leen déedéet masumaa gis benn dëgg lu may dañ ko tëgg tënk a tamaayuru wa saalika ñuy sikkar tey nay nay boo xam ne duñ ko organiser yow xamu na ne sa xaal xaal xaal xaal duñ ko wàlle xaal moom yow dañoo sikkar nga dem ba sa kii rek nga yëguloon boo boo yëgee ne def ko sax boo yëgee sax nga war a arrêté soo yëgee ni ñaa may xool rek waaye nga xam yaa boo koy def yaa ngay xool ni ñaa ngay xool nga ne nii déedéet bàyyi mboot bàyyi nag na fekk nag taqaddasa min lëb si na fekk bu ci lëndëm am mm-hmm. waaye tey ñun nga xam ne tey balaa ñu yow ci géew bi dañuy defer ñoo xam ne ñoom dañoo rang jigéen ñi taxaw fii góor ñi taxaw fii da nga maam ñuy boole di def nii bu bu wuy wi joxe xam nga daayira kër yëpp xam nañ léegi wuy bu jógee ne leen nii ne leen nii ak taaj ak taaj ak potasu loolu luñ luñ organisé la yow boobu de laa yuñ këru aadul kenn du ko wéti li àndaawoo ndax moom nga jaayu jaay sunu dagan la fi sarin ci sariya maa la jëb laay loolu tax bañ demee sa tariqa xalotiye wax naa ko waxaat ko tariqa xalotiye maa la jëb laay ba mu demee fekkoon na tariqa xalotiye jamono Cheikh Tidiane nii bu ñuy sikkar dañuy taxaw nii ci kaw dañuy taxaw raa bii taxaw ndeyjoor raa bii taxaw raa bale taxaw la taxaw su ko defee laa ilaha illa allah la maa la jëb laay ba mu demee ci jamono Mouhamadou ba si Cheikh Tidiane fekk na gars yi euh, xumbal na yëbi commencé nag dégg nga maam di di di di a maa la maa la jëb lay def ne sëmm lànk moom ndaxte kenn ki lu nga xam ne mooy tarifi Cheikh Tidiane dëgg mu ne sëmm lànk ba léeg-léeg alay asan si moo ko nett mu ne léeg-léeg xam koy nga sax mu faale wu yàggut lettre Mouhamad Basir ba mi ngi ci biir téere bi Mouhamad Basir sët Cheikh Tidiane ne interdit naa bu kenn taxaw ci def xadra xadra jumaa ci taxaw toog leen ndax yàq bi nga xam ne moom laa gis ci bi lii mi ngi dikk ci boo naa ko ci téere bi boo demee ci pays Cheikh Tidiane bi kon nag lii nag man gëstu naa ah li nga xamante ni ba ci sareex waxaan Suyuti jël nañ Suyuti radiyallaahu anhu mu ne wooyee kay fiin kuré naka nañuy sikka nañuy weddi ak sikkara xaa iman nañ nañuy weddi sikkar nga taxaw wal xiyaamu a taxaw saakiran taxaw di sikkar ayu alquran mu ko faqad qaala taala allazina ñaa xam ne yaskuroon la ñuy tudd allah yàlla qiyaaman mbir moom ñu nga taxaw wa qu'uudan wala ñu nga toog ba aay ba jeex loolu moom dara nekku ci waxuñ taxawaay bi ayuñ taxaw taxawaay bi tariku xalotee moo doon seen jëfi ma ci jamono cheikh loolu la def waqaal wax naa aysatu ndey sayidna ndey aysa radiyallahu anha kaa nekk na rasulullah sallam yaskur di yàlla ahyaanan ay temps isan dama bu tafoo ilaa sal qiyaami bu demee àggee ci taxawaay ba nag raqasa mu daadee fecc nax woo nax suma xaalisiyatu wal muraadu bi rax si nag atama yëlu dafay jaayu yeminan wa shimaalan yonent bu taxawaan ba mu yàgg di sikar kon ñii wéddi sikar sikar sikar gi yonent bi daan na seen ndey Aysa moo ne day taxaw di si karam yàgg mu commencé jaayu ndey joor ak càmmoñ kon nag lii nekk nag yéeminan wa simaana waxu moom ali sima xam na ali nekk asaaratu xalotiye xado xalotiye tarikatu xalotiye nekkoon mi ngi ko jëlee ci Mohamadu ba mu dikkee xalotiye nekkoon waa aydan Seydina Jaafar jël nañ ba te Seydina Jaafar radiyallaahu anhu xiina maa qaala lahu sallallaahu alayhi wa sallam yéen si ne ko ne asbahata xalqi wa xuluqi yow dangaa niroog man ci bindere ak jikko far raqasa mu fecc min la setin ay xajjala mu ne lu mu teg mu ne xajjala wa tawaajada wa tamaayala wara ali karamala coo fekk na boobu ma nga nekk gannaaw ali mu daal de kontaan kon loolu mooy rax su woon ci nit ñi nag dañ ne mu tëb déet fa ngi ne waraa ali la taxaw mm-hmm. radiyallaahu anhu wa aydan sayyidna ali wa jafar wa saydan ibnu saydan ibnu xaarisa lama tanason bañ xaccoo mm-hmm. fi tarbiyati bint sayyidna xamsata mm-hmm. bi gaañu woon ci uut mu bàyyi doom bu jigéen ñoom ñoo ñu tax xaccoo kenn ku ne maa ko yar aliyu ak jafar ak saydan فقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي كرم الله وجهه أنت مني وأنا منك يو تي مانغا بايكو مان تي ولا بايكو شر وقت جرف جوجي سيتال خمغ لول حقيقة خمغ وخنا لا بو فيكو ني لي نيو ديغ ا آه، يونت باماي واتش منك ومن نوح وابراهيم وموسى مديكنا وعيسى دا ديكرا تيجي kon nag Aliou moom itam mun te nekk xilaafa Babacar nekk place Aliou dafay dikk moom jaar ci Babacar Omar Ousmane Aliou wàcc na doog a nekk wali bi kon nag wilaya mu ngi bàyyi moom mi ngi bàyyi ko ci wilaya wilaya ngi bàyyi ko ci moom ndaxte boo déggee ci jaay ci jaayi rasaal bi Omar ibnu Mal dafa laaj bàyyi bàyyi na ko bàyyi man de damaa gis lu ma jaaxal mooy yonent bi def na ko yàlla. anta abo ruhaniyatu wa ibnu jismani maamaana saada amoon na deet omar xaaral loolu dañ koy laltaayal nga doog ko dégg ñetti man mooy ana kenn ku ne kum neex nga jël tam ana ana morom ni ko man anaaw uluhiyya ak anaaw ñetti yi ñeenti ñetti yi uluhiyya naa jël anaaw wax ca mën naa jël anaaw nubuwwa wax ca nubuwwa mën naa jël anaaw ñoom ñaar wax ci village ci boppam manager danaa ku ci nekk ñoom léegi nag boo gisee ñun ñu am problème mooy nit ñi dañoo di dikk di firee bëgg-bëgg duñ firee xam-xam tey waroo gaaw ci firi tànk duwul nga xam ki wax wax ji ba mu koy wax tiyo ko wax waaye ci làmmiñ war na ko waxee ci ñoom ñett mu ne ko waaw mu ne ko fii nag wali moo wax du yem ci bu wax wali yu moo ne ko nabi bi yow nag anta aburu wanete bu nekk ci alamul arwaax yaay sama baay ndaxte yaay adamul arwaax waaye buñ dikkee ci yaram nag awa ant ci yaram nag man maay nekk sa baay kon nag fii la na ko yow ci roofu mbaay ko ci yaram ci roofu mbaay ko ci yaram yaram bu bàyyi ko xale yi booba nag mooy jëm wilaay bi ndaxte buñ ko mooy kii xam ne moo kaw wilaaya kawe gi ak wilaaya bu tóol bi yooyu bokkuñ ay wilaay kon nag ah moo ah, mooy kon ndekk madinatu ilmi jëmm nit la mm-hmm. baaw ko mu jëmmi nit la mm-hmm. kon nag dëgg-dëgg yàlla ndaxte dëgg-dëgg madinatu ilmi mooy wilaaya jëmmi wilaaya dëgg-dëgg mooy wal abdu xallaqiya aynal xel mi jëmmi xam mm-hmm. nag moom gis nga wax jooju yonent bi waxoon wax yu wax du waxam wax wilaaya la waxoon mooy tam <laughs> wax wilaaya la it ko ko de <laughs> kon moom wax wilaaya la waxee waaye du du du sol bi wax mooy bi gis nga lii moo tax ñu war di daje ndaxte il faut nga dégg lu ko arab bu pire pire nga am xaqiqa boo xam ne bakkan bokk ca bokkan bakkan bu bokk ci àq rek yàqu bokk ci maarif rek yàqu moo tax mbaay na wa marak wa naf sama nag da ngay moom sa bakkan bi boo defee sulu kon xaqaayiq bi moom si bakkan waa def sulu kon xaqaayiq bakkan moom rek day sa xaqaayiq day yàqu boo gisee xaqaayiq day wëree maarifa day wëree gës bu day wëree day dem fa nga ko tegoon ba nga fa tegoon nga dikk raay ba yàqu ba nga dàqee nag dara amul nga dem ñaari fan nga jël sa waxi sëriñ mu gën wax la waxi yàlla gën la waxi seet yaan gën la waxi baay kon kay xam nga wëri kii wëree na moo tax nañu moj ne ko waxin wóoree kon nag mu ne ko yow anta minni wa ana min ba hajjala wa tawaajala mu daade yëngatu daade mu baaje hajjala mu baaje wa tawaajala mu bëggeen fan war a ajaar ak jafar ma fekk moom ak ci gannaaw jafar hmm. ah loolu def ma ma jot kon nag loolu ndax jox jox ndax fecc ni ñu gis léegi tey nga jóg teg ah ay sabar hmm. ah dégg maam ñu daal di ram def jiw ndax bokk nag boobu hmm. xam nga man sax waxuma loolu gis nga man gis nga man gis nga man sama sama sama marje fi may uutee xam-xam dëgg-dëgg ndax lii bàyyi wax na ko ndax bàyyi def na ko wala bàyyi ni mu wax na nañ leen roy ndax def nañ ko waaw def naa déet def na man loolu may wax de ah loolu mooy sama sunna man <laughs> man sama sunna ak sama farat soriwul daara ndaxte xam naa ne kii moom bàyyi moo ne man wasaane ilaahi daara nafsi allah ura amilu ila ma laysa fi sari yàlla moo ma la am man moo ma garanti la am du ma def loo xam dafa dëppoo nag sariya mukk kon nag kii ñun ñun ñun xam nga gis lii téere yi dañ ko def de waaye daf ñu yombalal liggéey bàyyi def na ko déedéet defuma ko bàyyi def na ko waaw ko def xalaas léegi nag dafa jël juróom-ñaar bi mu leen sampee juróom-ñaar mooy euh, huwa bàyyi euh, suñu àll wa sin wi wa kasaaka omaru mi man bi am asan saman saman bii ñii leen tuturoo raado Ousmane mu ne Ousmane nag mooy càqu jamono mm-hmm. mu nekk Ahmad mooy Ahmad Ahmad Thiam wal aminu Ibrahima mata ana bi yoom ñii mooy mooy mooy mooy mooy ndikki sharia ak tari ak fari ak tariqa ñoom ñoo ñoo dikk taxawee ko léegi nag mun oo ala jëb lay yam nii sami waalidi yaa ahmadou yaa seyqi ahmadou bihim ci juróom-ñaar ñii rek jaaral ma jural ci arab boo ko diggee iyaaka rek nax ri lañu daaw la ñu jaamu ci juróom-ñaar yi rek rek rek fal tax doo bu leen ko romb waaw léegi kon bàyyi indil na ustaas te daf la ko tuddee Ah, dégg nga am naa ixwati wa ahlul madrasa yéen sama doomi mbokk yi ak yéen waa jàngu bi ñi nga jikko yii mooy jàngu bi min sal madrasi xabas li ngeen jëlee li ngeen jàngee ci madrasi bi war war nañ ma ko madrasi bi ko tuddee kon première fois ki taxawal euh, sofiyanke indi daara joo xam ne madrasi mooy bàyyi mooy bàyyi bàyyi ñun waruñoo waruñoo réer ci dara dara dara dara waruñoo fakkatal bu fekkee ni topp ah كون نك باي نك كو خامني xam اراد ان يكون ماي yakuna may fal yaslu tariqi fil aqwali wal afaali ku bëgg a ànd ak man jaaral fu ma jaar ci waxit ak defal ah biir nga taxaw tem santaane bay bàyyi tere amaamal yentasibu ilina wayataku min shay'in min makhalif sari al mutara bi al marwa wa tark al marwa murad fa ushiru la wa ushiru ko ani bari um kep ko xamne top nga ba sama graw ngay bëtt ormaay sariya bàyyi tere yi jëf lu dul noonu maa ngi leen seenoo yéen ñëpp génn naa ci koox bokk ci man bokk ma ci man man tëkk yi dinaa ko dégg man sama sëriñ sëriñ bu ko def ma ne ko maa lànk defuma ko ñun nag li ñu bàyyi sant la ñu defu wal wasaayitu wasaayitu intermédiaire dong lañ mooy jot li ma jot naa léegi nag maay sa sëriñ déet Cheikh Tidiane mooy sama sëriñ bàyyi nag ñun ñun ñun ñun dañu waroon euh, gis nga fi ne pays bi dafa war a jëlee ay cadre ñu jàngale li nga xam ne mooy léegi bàyyi jàngale su ko defee ne ñu forcé nit ñi ne man d'accord naa su dee ngay fecc demal fecc ko sa kër waaye doo ko fecc sama kër baay man de man oustaz Guèye su fekkoon ne man maay tëral lii lay def doo waxuma doo fecc de waaye nag man doo doo doo génn kër bàyyi comme ni génn ci man génn ci yow génn génn naa ci yow waaye ma lay jëlee pour euh, moy poñetu àdduna man ngaa joxe addiya man ngaa joxe naa ko du ma ci téye kenn bàyyi ñes dara ci rus kenn amu ko ci la kon nag wa anna minka lool fa ajala wa tawaajala war a jafar ada was dégg nga wastadaloo aydan bi ma wa bi ma rawahu alxaafis kon indil naa la ay paraw am na benn xaafis waa aboo nahim an aliyin karamallahu wajhahu a fa innahu moom aliyu wasafa melal na rasulullah sallallahu alayhi wa dafa melal yonent bi mu ne kaanoo nekkoon nañ isa sàkkaroo buñ doon tudd allah yàlla waaw kon ñiy weddi naan ab géew bu daje di sikkar mi ngi nii de boo gisee téere bi lépp a ci biir ñoom dañ bañ dañ buñ nekkoon daje di sikkar maadoo kama tamidul asjar fil yawmi asadidirihi ñoom buñ nekkaan di sikkar maadoo dañuy jaayu kama naka lay jaayoo al asjaaru garab yi fii yow ci bés asadiidirihi bis boo xam ne ngelaw laa ngi hiriri na muy defee garab yi ñuy def nii def nii mu ne bu ñu ànd yonent bi si garab léeg-léeg si garab bi tàng ba nii la ñuy def kenn ku ne ris sa sama ba ngay ris sa morom sax doo ko yëg waxul tëb de ay yetamaa yaloona dañooy jengante mhm. wa yetawaajoona ñooy bëngéer mhm. wa jara daa daw du moom seen bongo seen rongoñ ala si abim seen seen yére ñu commencé commencé jooy jooy ñoom day lii nag mm-hmm. lii nag it kuntur kitaaba fadu saakirina benn téere bu ñu tuddee fadu na mm-hmm. ah, waradu alal munkirina ak dana ñàkk nañoo munkiri la doon weddi mm-hmm. la doon delloo léegi nag boo demee téere boobu da ko fekk ni ko yooyu waruwee ay ren ana sayidina Ababacar wax nañ ba sayidina Ababacar Siddiq radiyallahu anhu dàqala dugg naa ala umil mominin ci ndey mominin sayidatuna Aïsa radiyallahu anha fa wajada hinda jaariyatayni tughniyaani a danga wa tadrubaani adufa mm-hmm. wa nabi sallallahu alayhi wasallam mutaqasim bi saabihi fantaarahuma abubakar as-siddiq radiyallahu anhu mm-hmm. fa qasama rasulullah sallallahu anhu ci asrib wa qala tahuma ya ababakar fa innahu ayamul aid mm-hmm. lan la wax ji teg ababakar sa dee dafa dikk mës dugg ci kër yonent bi digg néeg doomam lañ ko doon def ci duut ci biir ëtt ba de ci ëtt ba de ndey Aysa nekk ca biir néegam ñaari jaam xale jigéen jaar ya duut sax ay góor de ñaari jaamam yu jigéen ah ñu ngay wëy jël seen tabala tabala duff di ko dóor ah yonent baa ngi ci néeg ba de mu takka seen bisaw bi yonent bi nag xoolul leen dafa sànq mm-hmm. ah wan leen gannaaw xoolul leen mm-hmm. sànq ba Ababacar duggee rek fantaaru ma am guddi abalkat bu gudd leen si ren am yonent bi mu dee ko ne ko bàyyi le bàyyi ko tey bi sa feet mm-hmm. kon Aysa ci biir néegam la ko defee defe ko ci ëtt ba defee ko ca mbedd ba ci biir néegam te ñaari jaamu jigéenam yonent bi xoolaana ko xalaat intéressé xoole rek kon kon léegi ii kon lii la def kon nag léegi dégg ngeen riwaay bi set na wecc xam naa talxiis riwaay bi dafay xaw a guddi waaye bu subaa bu subaa ma ma gën koo talxiis ah kon nag ñu taxaw ko foofu bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu dinaa ko